puis bi moom mi sax président Macky Sall sàkku ñu arrêté lépp li nga xamante ni xumbute la ci lu des ci tourne bi muy xamle ni itam lépp li nga xamante ni matuwaay la jël nañ ko ngir toppatoo ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo si jëlee ay gaañu gaañu. jëye jooje bi mu xewee télévision Futur Média gonte woon ci édition spéciale ngir doon ci defi waxtaan ay jàll ki PCA e, président conseil d'administration bu groupe Futur Média Youssou Ndour yëkkati fa ay kàdduy njaal kàdduy masawu kàdduy mititlu kàdduy tiislu euh, jëm ak ci euh, groupe leeral waaye it ci presse u Sénégal ñu teewlu ko moom Youssou Ndour waaw si suñu njaboot la dal suñu njaboot la dal ndax euh, presse dafa yaatu dëgg dëgg li metti na lool lool lool ñu ngi jaale njaboot gi surtout di ci jiital daam leen jiital waa waa waa leeral yépp di leen massawu vraiment métti na trop trop trop trop gis nga euh, journaliste yi ak euh, ñu nekk ci média yi li ñuy daj euh, pour rek jox askan wi li nga xam ne moom lañu soxla di ñaan yàlla ñi ci faatu yàlla xare leen àjjana ñi ci gaañu ñu génn ci le plus rapidement possible dellu seen kër vraiment métti na dafa mel ni ñëpp la dalandoo ci presse bi je sais que ni euh, tournée bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp koko ci le président de la république dinañu am lu leen lu leen trop c'est une surprise bu bu terrible terrible PCA président conseil d'administration bu groupe Futur Média